tës di journalu fait divers yi suba su ne suñu téere demi altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir quartier yi tës di ay fait yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeur mu ngoog salaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi maa ngi laa fay bu baax a baax Ndiaye. di la wax déwénati waay. fekkeel déwén. baal ma àq. baal naa la Ndiaye baal ma bu baax a baax a lakkal naa la sonal naa la. ah fu ma tourné ci mantu naka kaay toog jël wax wax ba sonn moom it mu encaissé. cey mantu lakkal naa la. <laughs> mbay maa lay jéggalu nag mbay est maa la gën a eh, sonal. non sonaloo ma. mbay maa la gën a sonal de. non man tuuti balaa sonal damay ruus mel ni ñoom chimère seede nañ lool de ah. ba damay ruus. chim maa gën a sonal mbay de ah. <laughs> non moom xam moom antenne bi dama sonal mais man ah, ak chimère dama leen war a baalu ci kër gi vraiment. mbay bu ñu duggee ci tës bi. lu xewati mantu. dañuy dem ca soxna soosu xale bu jigéen bi. te mu te ñu faatoon ko. dugaloon ko ci réservoir ndox bi. ah la moon ta Touba. waaw. cey. xale bi nag keroog libération ñëwaat na ci autopsie bi. Mm-hmm. lu mu wane. ñëwaatuma ci parce que dama jàpp ne. Mm-hmm. maanaam Sakho man dama jàpp ne. Mm-hmm. fi ñuy def focus ci mbir mi du foofu. du foofu du foofu coow li mooy ab xale bu jigéen la nu jël. jam ko deewul. ñu jël fiir takk ko ci baatam xoj ko ba mu faatu. Ah, autopsie bi ñu def ko ci mbuus dañ ko jam xoj ko si wane na ni xoj moo ko faat. dugal ko ci dugal ko ci mbuus ba pare. Mhm. tëmbal ko ci réservoir ndox. ba boo gisee néew bi gis nga ni mu tàmbali woon ndax leen ko lemee ci réservoir bi noonu la néew bi mel. lu ñaaw loolu. loolu la ñu war a dut baaraam. loolu la ñu war a mettre loolu la ñu a wane. loolu la war a gën a fësal. loolu la ñu war a fësal du leneen ku nekk ca keroog ñëwaatuma ci parce que autopsie bi dafa am yeneen yu mu feeñal. Mhm. yoo xam ne bu ñu koy def ci bopp nit ñi dañuy fàtte rey gi teg xale bi loo xam ne peut-être àttanu ko te lañ ko war def jamono ji mooy ñaanal ko waaye surtout wane jëf du ñaaw. Mhm. li tax ma ñëwaat nag dafa nekk fameem ñoo waxaat. te famille bu waaw bu ñu waxaatee dañuy respecté tegal leen lu ñu wax. Mhm. papa ji ba ko xaadim laajee nijaay ji la rakku yaayam la ba ko xaadim laajee ni ko autopsie bi dafa am lu mu wane dafa ne ko dëgg-dëgg loolu ñun intéressé wuñu mm-hmm. mambay loolu intéressé wul kenn. les faits moo ñu intéressé. faits yi moo intéressé nit yi mooy xale bu jigéen la bu ndaw bu ñu jël faat ko ci anam mu mm-hmm. méttee méttee xañ ko ay waajuram. loolu moo jar a waxtaane mm-hmm. loolu moom mooy tës bi loolu moom mooy débat bi ak ki ko faat fan la teg jël bakkanu doomu jàmbur ci anam woowu ak yenn daan lañ mën a teg ci kawam. lan doon wax ne papa ji baal na ko sax nee na loolu amul. ah ñoom dañ koy topp ba mu sës. kon suñ jëlee xibaar yooyu. tey dugg na du teew ñu wax nañ ko de ñu déglu leen chimère. li nga xamante ni moom décision la. Hmm. décision la. décision hmm. de justice. Hmm. dañ koy dañ ciy dem ba jeex. tàkk tàkk parce que jël nañ suñu avocat. Mm-hmm. def nañ ci liñ ci war a def lépp. Mm-hmm. waaw parce que mm-hmm. lu mel nii moom benn doomu aadama xalaatul ci kaw suuf. ñu koy teg ci sa kaw. nga koy bàyyi monsieur ngay ngay ngay ngay wut yeneen yeneen yeneen voie wala nga naan du ma def yenn kii yeeg yu demee noonu. yooyu daanaka ku xamul rek moo koy wax. waaye loolu moom xalaatuñ ko. ñun ñi ni ñun ñu ko jege lañ. papaam di ko jur. biologiquement xalaatu ko. yaayam xalaatu ko. ñi ko jege xalaatuñ waaw dañ koy topp jusqu'au bout. papaam moom ñëw na wala ñëwagul. Ah, waaw ak seegul. waaw ah, ak seegul mais mi ci waaj. ak seegul waaw. waaw léegi autopsie bi génn na donc jox nañ leen ko ci suba lan la génne. waaw autopsie bi génn na mais instant bii nii li mi ngi woon ci loxoy commissaire. Mhm. ak loxoy procureur. Mhm. waaw ñu li ñu gënoon a intéressé rek. Mhm. mooy jot suñu koor. wax dëgg yàlla fexe itam ba jébbal ko boromam ñaanal. def nañ ko en attendant nii nii nii. nag ci loolu ci la jublu. xool ba xam lan la lan la autopsie bi joxe. Mm-hmm. parce que ñun moom li ñu ci gën a daal. Mm-hmm. mooy suñu doom lan moo ko si jëlee. Mm-hmm. yan loxo moo ko li ko fi jëlee yan loxo la dañ man a teg ci loxo yooyu. dañ mën a teg ñooñu loxo. loolu moo ñu ci gën a intéressé. waaye leneen loo xamante ni moom. debaaw yeneen yeneen kii la moom yooyu gis guñ ko te itam téyeguñ ci quoi. autopsie bi daal jox nañ leen jox leen corps ba ngeen suul ko ci suba. waaw jox nañ mais autopsie moom jotagu leen ko. jox nañu ko mais jotaguñ uh-huh. jotaguñ ci lii quoi. léegi mën naa am nag mën naa am nag mën naa am nag fi ni hmm. nii. nii nii may wax ak yow nii. naa am it wax dëgg yàlla am am man nijaayam la. Hmm. bokk ak yaayam benn yaay. Hmm. waaw nekk fi. mën am itam mu nekk ci yeneen yoo xam ne itam xamaguma ko. waaw loolu mën naa am. loolu itam waaye daal man instant bi fii may wax ak yow nii gisaguma waaw. mais xam nga waa waa waa moom bon dafa nangul woon ci biir wax ji quoi ñu ngi doon ci information yi jot da naan daf ko ni donc yow da nga ma ëmbal mu bañ koog yooyu daal ba tax daanaka ci la problème bi jógee. Ah, mais d' accord xam nga xam nga comme xam nga comme moom moo wax loolu. Mhm. xam nga. Mhm. principal meurtrier moom moo wax loolu. Mhm. moom li mu wax comme ñoom ñaar ñoo fa nekk ñoo fa nekkoon. kii fi jóge moom dem na. moom mooy wax instant bi nii. li fa xew ñun ñëpp kenn xamu ko. loolu itam mu xew bu ne ko woon yaa ma ëmbal xam nga ma laaj yaa ma def lii ak yaa ma dévier yaa ma def lii ak léeg loolu yëpp boo ko rassemblé mhm. maanaam ray def ci amul yoon mhm. loolu yëpp boo ko rassemblé boo ko boolee mhm. ray amul finalité bi rey amul ci yoon waaw ñun li li lu ci mën a xew ñun suñu doom jim ray reyin bu ñaaw def ko li ba pare itam ak lu ci mën a xew ñun loolu la ñuy topp dañuy boole lépp lu ci mën a xew tey ji bu aussi autopsie bi génnoo ne bu nee daf ko dafa ëmb dafa ëmbul lëg yëpp ñun loolu dañ koy boole li mu defat lépp rek mm-hmm. topp ko ci yoon mm-hmm. loolu moo ñu gën a intéressé mm-hmm. parce que itam bu fekkee dafa ëmb bu fekkee ëmbul wax dëgg yàlla man leeruguma man leeruma awma ci lu ma leer mais bu fekkee moom booy bi ci boppam moom moo taxaw avoué loolu hmm. avoué loolu hmm. wax loolu mais commissaire bi ak procureur bi danañ xam nu koy apprécier nu ñuy apprécier wax jooju hmm. ba xam lu am la wala lu amul la ñoom liir nañ bu fekkee autopsie bi moom ngi seen loxo liir nañ ko xam nañ li ci nekk mun na wala amul wala nàngam mun a ñaata weer mun a benn wala ñaar wala ay fan ci mën a xew ñoom xam nañ ko waaye ñun moom finalité bi li ma la ci wax rek mooy daanaka ëmb beeg yooyu yëpp intéressé wuñu Mm-hmm. ñun li ñu ci xew mooy dañoo xëy ñu ne rey nañ seen doom mm-hmm. loolu ñun moo ñu yëkkati loolu la ñuy topp loolu la ñuy topp ci yoon mm-hmm. mais du mais du loo xam ni leneen la leneen la ñuy topp wax dëgg yàlla waxu waxu ëmb ak yooyu ma dëgg dëgg ñun topp toon léegi jokkoo nga ak bàyyam jokkoo nañ waaw léegi moom lu mu ci ban ban décision la ci jël non décision bi mu ci jël décision ferme décision boo xam ne mooy topp yoon jusqu'au bout jusqu'à la mort laa la wax waxuma la sax jusqu'au jusqu'à la mort ba bañ fiy juge lii nii ba lii duñ ko bàyyi. Mm. laa la wax. kii mm. dañ koy mën a téye comme ay comme comme comme comme ku def teg ko sanction waaw jaxale mm. teg ko sanction yoo xamante ni moo tolloo ak lim def. Mm-hmm. te buñ ko ko tegee sanction yooyu buñ ko ko tegee tey fii ak cent ans waratul génn ci kaso. Mm-hmm. waaw mm-hmm. parce que tey rey na nit ba pare rey na nit ba pare waxuma la dara mais dem def rësal cadavre dem jël dem jël néew bi dem yóbbu ko pour sànq ba néew bi wax dëgg yàlla. ni mu demee ni mu demee. Mhm. ba mujj gi daanaka dem na ba ba ba dépassé ko. Mhm. muy doog muy doog muy doog a toll fi mu toll muy doog a génn muy doog a feeñ. Mhm. daanaka yàlla suñu borom moo ko feeñal waaye du moom ci coobareem parce que moom la mu doon mébét bu sañoon affaire bi du feeñ. dafa doon def réserve cadavre. parce que daf ko bëggoon a rey ba pare sànk ko. loolu nag daanaka ñaari déli la yoo xam ne boo ko ci toppee. beneen nag bu dikkee. beneen beneen beneen bu dikkee. bu ci amaat man xaw ma ba xam am na wala amul. Mm-hmm. xaw ma ëmb am na ci wala amu ci. mais bu ci amee ça veut dire que beneen délit la buy teguwaat ci kawam parce que viol am na ci ba pare itam yaakaar naa parce que koo koo xam ne koo xam ne la quinze ans la. Mm-hmm. quinze ans. Mm-hmm. ngay kawam ba mu ba ba mu mën cee jëlee lu mel noonu tey kon yaakaar naa ni itam loolu yëpp boo ko rassemblé ay yu tegu ci kawam la yoo xam ni boo ko ci yoon toppee ñu suivre ko normal fii ak téeméeri ak waratul génn ci kaso bi. kooku waaw ñoom ñoo bokkee école. waaw ñoo bokkoon école. ñoo bokkoon benn école. ñoo bokk benn léegi papaam mi ngi fii walla fan la nekk. papaam mi ngi mi ngi extérieur. Ah, mi ngi mi ngi Italie. waaw mi ngi extérieur. Mm. Mm. Mm. léegi loo ci yokkaat rek. ci wàllu yoon yooyu. ah non liñ ci liñ liñ ci yokkaat mooy maanaam euh, ci ci ci boobu. xam nga liñ ci liñ ci liñ ci tegaat rek mooy ci wàllu ci ci wàllu yoon. yoon na def liggéeyam. bu ci am benn correction bu ci am benn négligence. parce que itam famille bi boo gisee révolté wu jéemuñu fajal seen bopp wala dara parce que dañu respecté yoon. Mhm. dañu teg ay loi ci dëkk bi. Mhm. ne képp koo xamante ni dañu dafa am loo xamante ni lii nga def lii moom mooy sanction. Mhm. boo defee lee lii lañ lay teg. léegi nag loolu yëpp buñ ko toppee mooy li ci loi wax li ci yoon wax nañu ko def jusqu'au bout bañ ci def benn négligence bañ ci def itam benn bañ bañ ci subir benn pression buy jóge fenn. Mhm. parce que itim dëkk bi ñëpp a yem ci kanamu yoon. Mhm. te def ju mel nii képp ku ko def nit war naa sax lu sa jomma taxaw di am lenn sax benn intervention bu mu lay waxal wala dara. Mhm. bokk yi moom ñoom ñëpp li ñu rassemble dañu rassemble li ñu wax benn mot d'ordre benn benn mot. lii dañ koy topp jusqu'au bout. waaw dañ koy topp mbaar mbaar pression dal seen kaw. non pression moom pression moom mënut a dal seen kaw. parce que itam bu boobaa moom danañ xam ba xam dëkk bi moom dafa am ñu ko moom wala am ñu ko moom. Mhm. loolu moom loolu moo ci am moom. Mhm. parce que loolu moom loolu moom benn personne mënuñu ko subir. Mhm. benn benn benn personne mënuñu ko subir. waaw affaire bi moom dañ ciy wax li ci yoon li ci li ñu teg ñi ko def ñi ko def ñëpp lañ koy teg waaw. koy teg. en tout cas daal liñ ciy xaar moom mooy yoon dox yoon yoon def ci lim ci war a def ñu ate ko kii dañ ko war a tëj tëj boo xam ni pen boo xam ni pen exemplaire la war a doon. Mhm. boo xam ne pour kenn dootu ko war kenn dootul def lu mel ni def ju mel ni mhm. parce que jëfu jëfu jëfu tey la jëfu xool xool natt nit ba ba xool ko la def ko li nga ko bëgg a def mhm. loolu rek la amul itam maanaam ñoo xam ne ay xale lañ parce que parce que kooku du xale majeur na am na lopp dix huit ans am na lopp dix huit ans nit ku majeur la ku xam li muy def la ku am xel la da doon jàng xam nga buñ fi nekk di créer dara naan ay kii xale laag ay kii dafa wérul ak ay nangam ak nangam. yooyu yëpp parce ko teel a évacué waaw danañ wax naan moom li li ko def la affaire moom xamu ko daal. waaw yooyu yëpp ay prétexte la hmm. gis nga Sénégal fii yi da ngay gis ku def ku def lu ne wengam. dem dund sa loola neex def sa lu ne weng ba pare di taxaw naan say mbokk taxaw naan ay kii wérul ak ay kii day daa ami rab ak koy def loolu ak lii koy def loola daara amu ci nit ku wér péng la moo ñu gën a wér. Hmm. moo ñu gën a xam bu baax moo gën a xam ñëpp xam na li loi bi wax ci nit ku rey nit xam na li loi bi wax ci nit ku viole nit lépp xam nañ ko ba pare mu teg loolu yëpp dem def lu ko neex kon nag li yoon dogal ci kawam nañ ci dem à cent cent lañ ko tëj peine capital peine boo xam ne peine exemplaire lay doon képp ku ko dégg képp koo xamante nii ndar ngaa defatu lu mel nii nga tiire leçon nga xalaat lu mel nii pour doo ko defat mhm. waaw loolu daal la dese mhm. dese beeg façon wu dese beeg ak kii beeg yooyu mais nag loolu li loolu li ci xew mooy li li nga ci gis rek mooy maanaam moor bi li am am na ki ko defit police teg na ko loxo mais nag lu jëm ci ay affaire ay jéggaloog ay yooyu loolu moom loolu moom mësul am parce que mm. parce que papaam papaam bi ko jur mm. bàyyam bi nga xam ne mooy papaam biologique car mm. nga xam ne moo nekk Italie nga xam ne daf ko jaral mu jóge fa ñëw mu jóge fa ñëw kooku jégewul sax ay affaire pour bàyyi mu seet rek pour di bàyyi baal nit ak ay yooyu loolu nekkul sax nekkul sax ci logique boobu moom dafa ñëw taxaw pour justice def li war pour justice def li war ak ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy ay ndijaayu xale beeg ak ñun ci àndal ñëpp xëy na am na version yoo xam ni ñëwoon nañ fi première fois bi boobu fekk nañ affaire yi di doog di doog commencé am yenn ampleur yi. rom rom ngeen ko ba pare. waaw. Mhm. denc nañ ko ba pare denc nañ ko ba ñaanal ko waaw. Mhm. jaajëf merci beaucoup denc nañ ko jaajëf ok. banque bi mi ngi nekk fii côté Dior. Mhm. bëgguma tudd turu banque bi nag. may naa leen dell ay fan. Mhm. Cheikh bu bu ñu joxewul xaalis bi dañuy tudd turu banque bi de. Oh. pour responsable jot ci mën a décanter situation bi. Mhm. femme bi dafay épargner. épargne six cent trente mille. Mhm. ba tey mënu ci jot ñu naan ko xaalis baa ngi fii mi ngi faa. ak ah, loolu. nekk na fekk nekk ko fi retiré nañ ko retiré wuñ ko. banque bi lu mu doon. banque la. nii nii salaire di denc. ñu déglu femme bi. ayca ayca. waaw salaamaaleykum. man dama am problème ak benn banque bu nekk problème bi mooy dama fa doon dénkaane sama xaalis société bu ma doon liggéey itam fa lañ ma doon envoyé sama xaalis léegi ma ubbi benn DAT DAT mooy xaalis boo xamante ne valeur de 600000 la. compte bloqué la compte bloqué la. waaw dañ ko bloqué njëkkoon naa fa ubbi benn ba retiré ubbi ba defaat beneen mille bi bi ma koy bloqué am na kenn benn daam moo ma ko ubbiloon. daam bi ma ko ubbil ba ma njëkk def bloqué blocage yu un an bi boobu ba ma dellusee ba échéance bi matee ba ma dellusee moom nekkatu fa woon dafa am keneen ku ko remplacé kooku ak moom laa defee deuxième contrat bi muy 612000 bi ma defee 612000 bi ba ma ko joxee xaalis ba pare bu mu bindee contrat bi après mu jox ma sama contrat garder contrat ma dem ñibbi bi ma demee ndax ba may ubbi contrat bi dama joxe woon ñaari numéro ndax àddina wóorul sama numéro ak sama numéro petite sœur mu woo ma ba sonn jotu ma après mu woo sama petite sœur bi mu wooyee sama petite sœur sama petite sœur man moo ma woo ne ma wuyul waa banque bi nee dañ la soxla wuyul une certaine madame léegi après ci ëllëg sama dem fa mu ne ma effectivement xam nga 600000 nga joxe woon intérêt bi 12000 la dama fàtte woon dugal 12000 yi parce que jamono wóorul loolu ma léegi dugal naa 12000. parce que yow compte bloqué yi ngay def dafay am intérêt chaque chaque chaque bu jaayee. waaw chaque bu jeexee dafa war a am intérêt waaw. ndax boo gisee ma garder xaalis bi parce que dama ko bañ a lekk am naa ay soxla wéruma ba pare liggéeyatuma sax mais bi may ibbili lii boobu fekk maa ngi ci liggéey léegi bi loolu amee mun ne ma waaw léegi baax na mu jël contrat ma jël sama contrat un an six mois la un an six ba mu passé ma dellu siwaat pour signer ko beneen ma ñëw mu ne ma effectivement léegi am nga fi 630 000 mooy troisième contrat bi ma ne ko 630 000 bi léegi ba tey damay defaat beneen moom mi ngi toog am na beneen daam bu wax seq ñoom ñaar ñoo toog bi muy def boobu sax. nga defaat beneen contrat. waaw encore beneen compte. bu deux ans beneen compte vingt cinq mois boobu moom ma ko renouvelé pour vingt cinq mois moom bi muy def renouvellement beneen daama ngi dégg nga ñaar ñooy liggéey ñu bloqué ko effectivement mu jël contrat ma jël sama contrat ma dem. léegi yàlla def après six mois plus tard mois de juin bi passé ma dellu si fa le vingt le vingt deux juin ma dellu si fa ma ne ko ah man de damay interrompre contrat bi ndax sama soxla bi yitte boo taxoon may bloqué xaalis boobu ba tey laalu ma ko jot na mu ne ma ah ñun dañoo changé système il faut nga revenir parce que suñu liggéey dafa bëri dañu changer système effectivement fekk naa fa ay nit nag mais xaw ma nu mu demee ma ne ko ah da ngeen changé système léegi ma revenu mu ne ma il faudra revenir le samedi fekk ma féex le samedi je suis revenu bi ma ñëwee après moom fekk ma fa seen gérant bi seen gérant bi keroog liggéeyul après léegi mu ubbi compte ba ma ubbee compte bi mu a ma nag amul droit jox ma xaalis bi sans l'accord du gérant il faut gérant bi mooy signé mu woo téléphone gérant bi. boobu loolu yëpp ba ba foofu noonu gis na contrat bi reconnaître na ne yow am nga fa trent mille reconnaître na am naa fa 630 000. ok parce que juum na woo ma ba muy def ko blocage bu mujj bi beneen daam mi ngi toog ci wetam ñoom ñaar ñoo bokk liggéey bi. ñu ngi toog ñoom ñëpp. léegi bi mu wooyee ci téléphone kii bi nu mu tudd gérant bi gérant bi ni ko effectivement mu ne ko lan la mu ne ko diw une certaine diw dafa bloqué woon kii am léegi dafa bëgg a contrat am. mu na ko jox ma compte am na ko jox na ko compte ba muy jox sama numéro compte mais xaw ma nag après lu ñu waxante daal li daam bi wax rek laa mën a dégg léegi après par la suite mu ne ma léegi intérêt yi nag ma ne ko ma ne ko intérêt yi ah da ngeen ko ciy boole 630 000 la woon même su fekkee yéen def ci contrat bi tout moment boo ko débloqué dañ lay fay sa intérêt li nga fa am rek mu ne ma léegi xaaral mu waat beneen daam pour expliquer ko bi affaire u bi woo beneen daam daal maay ma nu mu sant bu wax ak moom ba affaire contrat yi ba ñu paree après léegi mu ne effectivement léegi dañ lay jox sa 630 000 après intérêt yi dinañ ko régler ñu def ko sa compte ma ne ko amul problème après mu nekk ci nekk ci nekk ci chaque fois am na fu muy dugg ñu defal ko accès interdit mu woo beneen collègue am pour kooku jàppale ko parce que nee na moom miinul système bu bees bi ci lim ma wax ñu nekk ci nekk ci mënuñ ci dara ma ne ko man dama war a dem mbuur parce que dafa am benn projet boo xam ne ci laa war a yóbbu bi te xaalis bi fii laa ko bloqué fii laa ko war mën a débloqué sama compte ñu ma xaalis bi ma doog a dem à mbuur mu ne ma bëna ngay dem ma ne ko 8 heures war na ma fa fekk kon donc xaalis war nañ ko débloqué mu ne ma ah léegi demal incha allah dinañ ko débloqué viré la ko sa compte ma ne ko déet duma dem duma demee noonu day yomb tamit loolu est ce que wóor na mu ne ma demal man maa la ko wax ma dem far yàlla def lundi boobu ma lundi boobu ba mu jotee affaire bi dañ ko fomm mujj maa dem mbuur ma dellu si foofu directement dem seen caisse pour vérifier samay compte bi ma demee foofu pour vérifier samay compte ñu defal ma 30 000 sama compte épargne lañ ma viréel trente mille francs ma dugaat génn parce que même banque bi la ma duggaat génn ma ne ko madame diw kaay xool mun ne ma ah kii bi viré DAT bi viré nañ ko bu yàgg ma dama foog ne sax dama ko retiré ma ne ko vi retiré ma dara su ma ko retiré di ngeen ko xam ñëwal xool effectivement kooku ne ko ah trente mille de moo fi nekk mu delluwaat gis ak gérant bi génn ñëw ñu ne ma sa compte dafa débiteur ma ne leen lan mooy compte bu débiteur ñu ne ma mooy compte bu manqué xaalis ma ne ah compte bi nan la mënee manqué xaalis loo xam ne dañ ko bloqué man aw ma ci accès yéen ci am accès nan la mënee manqué xaalis ñu ne ah loolu de moom mu ne ma loolu de man jaaxal na ma sax man léegi seen gérant bi ñu necc ne ci ba mu yàgg mu ñëw mu ne ma madame de toutes les façons bu fekkee erreur bi su ñun la c'est de notre part amul benn problème la delloo sa xaalis léegi dangay dem tu vas revenir ma dellu siwaat jour bi ñu ma jox bi ma dellu siwaatee mu ne ma xaw ma ñu toog ba mu yàgg mun ne ma yow sa 600000 yi blocage bi kenn gisu ko loolu nekkul fii suñu ordinateur yi mooy départ bi ma ne ko ah nekku fa mais man loolu concerné wu ma man contrat moo ma léegi yéen indi sama xaalis dénkaane ko ngeen jox ma sama contrat ngeen signé cachet ma signé looloo ma léegi yéen li ci def seen liggéey ndax yéenay tiim seen ordinateur man mu aw ma accès seen ordinateur loolu du sama liggéey te concerné wu ma sama xaalis daal moo ma concerné léegi dame bi moom ne ma naa bind lettre réclamation gérant bi lettre de réclamation gérant bi mooy maanaam euh, yow lan nga soxla ma ne ko sama 600 bi ma bindee ba yeggale parce que loolu lay gudd man leen je réclame mes 630 000 avec intérêt nañ ma sama xaalis. mooy seen kilifa gi moom kilifa gi ki nekk foofu. Mhm. moom laa ko bind moom mooy bu njëkk bi. Mhm, mhm. bi ma ko bindee loolu. après léegi man ñu ne ma ana sa ñetti contrat yi man sax sama beneen contrat bi mooy 600000 bu njëkk ba parce que man dama feebaroon man daf ma xawoon a réer man leen boobu sax yoruma ko ma génnee ñaar yi mooy 612000 ak 630000 bi mu ne ma xaaral demal ñu wëral la beneen bi ma dem ci beneen bi moom mu xool xool parce que moom ubbiwuloon ko ci classeur am ko ma nekkoon ana classeur am mi ngi fi ma ne ko xoolal fa parce que moom ko ubbil beneen daam bi nga xamante ne ñoom ñaar ñooy toog ki nga xamante ne bi ma doon bloqué 630 mille yi mi ngi toogoon ak moom moom moo ubbi classeur boobu fëyata fëyata fëyata mu ne ma ah ñuy wax ban moment la parce que effectivement ñun gisuñu début euh, kii bi fu mu commencé compte bi fu mu commencé li ngay wax noonu xaalis bi 600000 fi nga ko bloqué keneen ki ne waaw loolu nan la mënee nekk mu ne ko ah kay xool nañ ba sonn gis nañ lépp li nga def mais gisuñu loolu ma ne ko trent mille ba ma koy bloqué moment boobu dama feebaroon sax jour bi ma fii ñëw j'étais malade sax wax leen moment bi mu wër a ci classeur bi yàlla yàlla def yàlla di def ñu gis ko ñu gis contrat d'ouverture bi muy 600000 ñu gis ko. bi ñu gisee contrat d'ouverture bi nag léegi ma waax mu mu jël ndaw si jël original bi te photocopie jox ma photocopie jox gérant bi photocopie jox ma. ma dellar ba ci gérant bi ma ne ko danga ne woon gisoo 600000 yi waaw kay tungu ne du teew ñi nataal léegi leer na naññ mille yaa ngi noonu mu ngi noonu ci classeur nangam daam bi fi nekkoon ca lañ ko gis. léegi mu ne ma xaw ma demal ñëwaat ay dem ñëw di ma dem ñëw te man maa liggéey sama xaalis maa ko ñaq ci naaj bu tàng mi di yenu ay carton ndax man commercial laa sonn bay bëgg a dee ba feebar ma xaalis bi loolu yëpp maa ngi ko téye joxuñu ma sama xaalis ñu ne ma encore naa revenir bindaat seen beneen kilifa du ma tudd turam seen kilifa gu mag gi jigéen la ñu ne naa ko bind lettre de réclamation ma bind lettre de réclamation bi loolu yëpp maa ngi def nànk parce que loo gis yoon la ma bindaat kilifa gu mag gi lettre de réclamation jox leen ko nee na ma de envoyé na ko par mail loolu daal la ma wax mu ne ma envoyé na ko par mail léegi ñun suñu yoon nekkatu ci jox nañ ko ñee daal ñoom ñooy gérer bu dee mënuñ ci dara daal nga dem police loolu daal la ma wax moom nee na ma daal envoyé nañ bu dee mënuñ ci dara daal nga dem police loolu ma wax daal moom waaw ma toog ma dem dem dem ba quelques jours ma ñëwaat mu ne ma loolu génnagul daal di ma ñàkkal fayda loolu génnagul da ngay dem toog xaar loolu génnagul ñun suñu yoon nekkatu ci débarrassé tout tes responsabilités fa la xewee dégager toutes ses responsabilités man tam ma toog bi ma toogee ba mu yàgg far carte bi day seen carte bi day am numéro kii bi seen kii bi direction générale ba ma ko ba foofu ca direction générale pour gis daam biñ ma booleel. ba ma demee foofu fekk secrétaire bi ci bunt bi ndax doo am accès ci moom ndax bureau ci kaw la ay ascenseur la. ma ñëw na ko une certaine dame laay laajte madame temps mu a ma xaaral lan la woon loo koy doyee ma expliqué leen. man leen man dama am problème ak sama waas. mooy mooy euh, njiit li ki ki nga xamante ne moom moo jiite banque yi nekk fii Dakar. très bien très bien moom laa bëggoon a gis en personne ndax moom nee ma envoyé na ma mail bi. mais man loolu dayuma du ma liggéey sama xaalis sonn ci ñàkk ci nekk ci naaj bi di dang-dangi toog nit toog ak bureau climatisé ñëw di ma ko lekkal ma toog di xaar. moom mi ngi toog di xaar safu ko man saf na ma dama sol sama daal dem moo gën a wóor pour ko mais mënu ko gis woo na ko ba sonn daal nee na ma jotu ko daal wax mën na ma toogal benn seen benn euh, kenn ku nekk si bureau yi wàcc fekk dafa amoon ay gan yu nekkoon foofu mu recevoir gan yi ba pare mu recevoir gan yi ba pare mu xool ma ko man une certaine madame temps laa bëgg a gis parce a jox ma xaaral ma yégal ñii ci ascenseur bi ma ñëwaat mu wàccaat ci saa si ma jox sama demande euh, lettre de réclamation bi ba ma ko joxee sama lettre de réclamation bi mu lire ba pare mu ne ma kooku dafa xaw a jàpp boole ma keneen seen beneen waay bu nekk ci suuf un certain inspecteur la ma booleel ma dugg ci bureau kooku expliqué ko sama cas mu woote ba mu wooyee jot daam bi daam bi ni ko xaaral ma passe gérant bi wax ak gérant bi mu ne ko ah kii dafa ñëwoon fii nar a gis boss bi ñu intercepté ko loolu daal la ko wax loolu laa dégg lu mu wax daal waaw li mujj li daal mooy mu ne ma d'accord léegi léegi maanaam bi nga xamee ne maanaam def nga loolu yëpp jaar nga fi nga war a jaar yëpp bind nga lépp bépp këyit boo war a bind finalement jot nga sa xaalis wala jotoo ko jotuma dërëm jotuma dërëm 30 mille francs yi ñu ma jot a envoyé intérêt yi moom moo nekk sama compte épargne bu dee jëlaatuñ ko dagguñu ko parce que dernier mot bi moom daf ma ne ñoom ameluñu la bi ñu ko envoyé ci lim ma wax nee na ñoom nee nañu ameluñu ma dërëm ma ne sama xaalis dañ ko détourné xaalis bi nekk sama compte moom lañ détourné di ma tuur lëndëm naan ma ay 600 000 dugg na fii génn fii contrat kenn du ko bindee ci maali foro porté wu ma fii laa njëkkee porté wu ma plainte fii laa njëkkee ndax tës dama seetlu ne moom mooy waxkatu ñooy waxkatu dëgg yi ñoom ñooy dimbali néew gi doole yi ndax ñoom dañoo am doole man aw ma doole parce que moom ci wax bi nee na ma bu la neexee bu fekkee kiiwuñu mënu ci dara nga dem police comme police léegi bu fekkee naanukaay ndox la man dama ne fii laay njëkkee ba pare man bu ma amee ñu ma jàppale man sama intention mooy jot sama xaalis ndax dama cee sonn ñàkk ci dama cee sonn sama alal moom dama koy défendre ba keroog may dee du leen ko bàyyee dafa yomb trop Expresso mi leen indil offre yu bees tàkk muy sunu mix ak offre net moo leen di may seen émission tës. tës. salaamaaleykum. tey nag tës bi li tax ma ne day xaw a gudd dañ koy dañ koy gaawantu ñu ñu dem ci door ñëw ci annonce yi euh, mbir euh, François Mancabou la Mm-hmm. démb maag yow mbay liggéey nañ ci ci ngoon gi lool ngir jéem a am version bu soxna si mais mënul woon antu vu ko avocat yi dañ leen conseillé bu ñu wax bu ñu waxagum mais nag euh, ñu wax ne am na benn interview boo xam ne soxna si defoon na ko ak Kewaloo mm-hmm. je pense Babacar Touré moom si boobu mm-hmm. donc Kewaloo la defaloon interview bi interview boobu nag gis nañ ni démb daanaka ñu bari gis nañ ko ci réseaux sociaux yi moom la ñu jëlaat fas yéene ko baaxale askan wi mhm. euh, dendale ko nag ak ak euh, procureur de la république Amady Diouf li mu wax démb euh, concernant li nga xam ni moom moo di li dal moom François ba mu faatu mhm. ndax nee na dafa mbëkk ay gris yu ah, nekk ci commissariat ak mur bi hmm. mhm. ba ca la jëlee ay gaañu gaañu te nee na loolu am na video bu 13 minutes boo xam ne mi ngi ci ñu koy filmer hmm. maanaam ay caméra de surveillance di ko filmer muy dóor boppam ci gris bi ak ci ñuy wax bi nag moo moo moo moo muur bopp ñu bari hmm. temps boobu yëpp muy dóor lu tax nit yi euh, jàppuñu ko wala buñ ko jàppee ban anam lañu ko jàppee en tout cas euh, vidéo bi neen joindre nañ ko ci dossier bi hmm. donc ñun moom à notre peut-être mënuñu ko gis vidéo bi nag mun na génn comme mun na bañ génn donc lu ci am daal mooy jabar ji moom dañ koy déglu attentivement wax dina gudd na trop. Mhm. parce que wax na à peu près vingt deux minutes. Mhm. mais dañ koy déglu attentivement jaar na ko nañ ko déglu parce que bu ñu ko déglu rek dinañ gën dinañ comprendre à peu près. problème bi nu mu commencé ba nu mu teeree. Mhm. parce que diggante wax ji ak femme bi fi mu noppee faatu gi rek moo ci am diggante bi donc information yi ci soxla yépp mi ngi ci ojo bii nii donc faatu gi rek moo ci yees. loo xam ne soxla si ñëwaatu ci. donc dañ ko déglu attentivement ñu ñëwaat. Euh, waaw dañu ñëw sama kër huit heures du matin. bi ñu ñëwee huit heures du matin ñu fëgg. ñu fëgg ñun ñu dëgg kuy fëgg ñu insister. quand ils ont insisté nit ki fëgg na lu yàgg nous on n'a pas ouvert. moi j'étais dans la chambre. et François était au salon. allongé di seetaan teleem. ñu fëgg fëgg lu yàgg mu ne mais kookal la c'est kii. ñu ne ko ñun la. dañu soxla woon madame. mu ne leen yéen kan. ñun madame la ñu soxla. madame. madame daf leen jox rendez-vous déedéet man la El Hadj Ndiaye maa ko soxla woon moom mu ubbi bi mu ubbi ñu dugg ñu dugg bonjour euh, Nio c'est la police centrale yow leen jël si mu ne leen police centrale man ngeen jël si waaw man ngeen jël si ci lan à propos de lan euh, topp ñu mu ne leen non man ma ne leen attendez parce que c'est trop facile dëkk bi léegi dafa doy waar si li ma leen tontu ma ne leen attendez ma composé benn commissaire ma ma woo ko ma ne ko monsieur le commissaire dafa am ñu dugg sama kër ñu ne François la ñu jël si c'est la police centrale euh, est-ce que loolu mën na ne parce que léegi dëkk bi wóorul kooku daal di étonné commissaire bi ne ma la police centrale mu ne ah dañu indi convocation ma ne ko non amul convocation amul mandat d'arrêt dañu ñëw rek ñu ne topp ñu ñun dañ ñu yondi topp ñu boobu ñu ne ko attendez ñu dem ci couloir bi fouiller ñu fouiller salle bi xëcc fauteuil yi ubbi sama valise yi fouillé partout lu ñu fouillé ñu laaj ko ndax moom moo ko moom moom bu nekkee kër ga il été toujours armé day teg nii arme bi ñu ñu jël arme bi ñu ne ko tablette bi yaa ko moom wala madame mu ne maa ko moom mu ne gete été armé ça plus de dix ans signé par le ministre de l'intérieur jëluñu papier bi bu arme bi ñu jël arme bi kese ma ne leen mais yéen lii c'est louche wuyooñu ma ñu jël arme bi kese bàyyi papier yi mu ne mais j'ai les papiers nangooñu jël arme bi tablet bi ñu jël ko ñu ne ko ku ko moom mu ne leen man la ñu yëkkati benn sac yave avait des affaires à téere des chapeaux des documents mu ne leen non lii bu madame la bu liggéeyam la pour liggéeyam la jël nañu tablette jël nañu arme bi jël nañu tablette bi ñu ne sac bu noir bale mu ne moom laay liggéey ki ko ne dañ la jël si kooku yëkkati sac bi yi ils étaient trois keneen ki ne ko non le sac c'est pas mu ne non non ne indi sac bi maintenant euh, dama bëgg a xam da jour arrestation ñoom bu ñu ñëwee wax ñu leen lan moo leen andi ci kër gi. expliqué wuñu dara waxuñu lu leen indi expliqué wuñu dara c'est la police centrale yow la ñu loolu lañ ci am. man bi ma toogee sama lal balaa mu leen di ubbi pour dire ñu ngi fëgg si voisin bi en face donc il n'était pas sûr këram. fëgg nañu fëgg nañu la dame a ouvert dañuy seet kii ils ont donné un nom dame bi ne leen non ki ngeen di wax dëkku fi fii ñun ñoo fi dëkk te ñëpp xëy nañu ñu fëgg en face. donc madame man su ma comprendre bu baax euh, li nga wax donc ñoom ñëw nañu pour arrêter sa jëkkër François Mancabou mhm. mais sans pour autant ñoom ñu xam euh, identité wu identité de la personne. bu ñu voilà identité de la personne bu ñu ñëw jël si ñoom xamuñu ko parce que dañ ko ne. quel est quel est euh, donne-nous foofu sax man dama réagir ma ne leen ah yen de li doy na waar. yéen ngeen ñëw pour arrêter nit. moom mu ne ma calme-toi. jarul ngay tàng ma ne ko non ñu ñëw pour arrêter nit ba pare ñu ne ko donne-nous ton nom ton prénom mu jox leen ñu ne ko date de naissance mu joxe mu ne leen 5 février 71 jox leen nom prénom bi ñu ne nom de la mère nom de de, de ton père ñu continuer di fouiller am na benn paquet si ngoom bu ma tegoon ci table bi foofu dama réagir waa ji naan paquet bi lan la ma ne ko même si je posais la question à une de mes élèves dina xam paquet bi lan la moromam tontu ma ne ko da c'est pas à nous de te dire fuyal nga xool mu yëkkati benn sac mu ne et sac là lan moo fa ne pour te dire que c'était bizarre François ne ko mais billet d'avion parce que lu muy toog Sénégal bëriwul mu xool mu gis si avait les billets d'avion. madame balaa ñoo jàll foofu léegi yow est-ce que mën nga wax euh, mbokk internet yi lay déglu kan mooy François sa fonction c'était quoi pourquoi moom ñoo ñuy ñëw trois inconnus yoo xam ne xamoo leen ñoom ki ñu ñëw arrêté sax xamuñu ko kan mooy François. ak lan moo tax ñoom ñu ñëw seen kër pour jël ko noonu yóbbu ko te kenn xamu leen quoi. François Mancabo est un garde corps rapproché depuis des années. il a travaillé avec Cheikh Tidiane Gadio pendant dix ans. et je peux affirmer que il reste pas beaucoup ici au Sénégal. il est tout le temps en mission. même quand il a quitté Cheikh Tidiane ça fait dix ans. lu muy toog fii bëriwul. ku ci enquête. dina ci xam leer. dina ci xam leer. kuy François Mancabou ku ci enquête di nga ci xam lu leer quand tu les enquêtes que ce soit à Dakar que ce soit partout que ce soit en France que ce soit au Tchad que ce soit à Singapour partout ils te diront qui est François Mancabou d'accord moom euh, wax nga ko say biir waa sànq mu nekkoon euh, garde corps euh, Cheikh Tidiane Gadio ndax bu muy jógee ak Cheikh Tidiane Gadio amoon na benn problème boo xamante ne mu am na ko ak Cheikh Tidiane. demoon nañu ci yoon moom mu gagné yóbbu na ko ci yoon parce que quand ba mu arrêté fayu ko mu yóbbu ko ci yoon moom mu moom mu gagné procès bi parce que daf ko ne on a voyagé on t'a arrêté aux États-Unis man dam ci bëgg a set parce que je sais nu may liggéey ak yow je préfère te quitter dans trois mois je te quitte ñu dem ba ñu egg procès moom moo gagné procès bi mais fayu ko fayu ko lan moo nekkoon problème am entre moom ak Cheikh Tidiane Gadio problème bi lan la. François euh, bu muy liggéey ak Cheikh Tidiane Gadio Cheikh Tidiane Gadio c'était son Cheikh Tidiane Gadio était euh, le ministre des affaires étrangères. François était son garde-corps rapproché. liggéey na ak moom dix ans. quand ils sont partis aux États-Unis Cheikh Tidiane Gadio avait des problèmes. ñu arrêté ko aux États-Unis biñ ko arrêté moom mon mari François est parti en France toog fa quelques jours et il est rentré. bi mu nekkee États-Unis nekk ci problème am buñ ko libéré mu ñibbisi la ko François ne man dans trois mois je te quitte parce que li nga def adduna bi yëpp yëg na ko te man je travaille quitte avec ma conscience liggéey naa la dix ans mais dama lay wax ne dama lay quitter parce que man quand je travaille xam nga ma man je suis d'une personne digne je suis digne dans ce que je fais donc je peux pas continuer à travailler avec toi parce que sa problème dafa délicat c'est un problème délicat boo waxtaanee nañ ko ëllëg mën naa si am problème moo tax mu quitté ko waa ci ci boobu jamono moom ñoom bu ñu quitté euh, ci li nga xamante ne amicalement lañ quitté wala dañoo mujjee am benn procès boo xamante ne amul. dañoo am procès dañu dem si procès parce que daf ko quitté fayul fayu ko bu mu ko fayulee moom mu yóbbu ko ci yoon mu yóbbu ko ci yoon ñu dem on lui a carrément dit tribunal que moom moo daanu François moo gagné procès bi te François bu mu gagné procès bi ba tey fayu ko le même François boobu noonu euh, ñu ñëw euh, arrêté ko vendredi bi seen euh, seen kër donc tey jii moom mu nekk commissariat bu central effectivement yow <clears throat> dem nga ko xool gis nga ne état bu mu nekk normal tey jii est-ce que mun nga mën ngaa wax suñu mbokk internet yi ban état nga fekk ki nga xamante ne moom mooy sa jëkkër. quand on l'a arrêté à la police centrale le vendredi 17 moi je suis pas partie le premier jour je me suis dit je vais renseigner est-ce que dina am accès le samedi 18 23h30 du soir 23h30 sama portable sonné comme du ma koy je du may fay sama téléphone ma jël mu sonne sonné ma jël alo allo mu am ku ne yow de yaa ngi oo madame waaye uyul ma jël mu ne ko si si décroché na mu ne ma sava va ma ne ça rek mu commencé tu te ñu taqal ma ñu ne man maa kii si ay terroriste ñun ñooy dee engagé ñu ay ay ñun ñooy dee kii ay marche ah tu te rends ma ne ko calme toi ma ne ko léegi euh, quel est ton problème je peux passer mu ne ma amène moi à manger soo ñëw nga indaale tam ngay indaale ndox mais booy nii la ma ko waxee mu ne ma mais booy indil ma coob suba c'était le samedi. donc moom euh, dañ koo tuumal ne. moom terroriste la bokk. waaw lañ ko tuumal mooy ce groupe là buñ des des terroristes bu ñu arrêté noonu après ñu ne ñooñu sax ñooy saccagé bon moi j'ai pas vu le journal mais ils m'ont envoyé j'ai écouté l'audio aussi samedi boobu 23 h bi ma la wax mu woote mais na nee naa ko indi lekk yóbbul ko ndox le dimanche matin de bonne heure man ma jóg euh, la galette c'est à côté de la police centrale j'ai acheté des trucs j'ai acheté une bouteille d'eau j'arrive ñu ne ma la bouteille d'eau ne rentre pas ma ne ah bon et quoi faire ñu ne ma acheter des sachets d'eau il y a une boutique qui est à côté je connaissais la boutique depuis à côté de la galette je suis rentrée dans la boutique je suis rentrée dans la boutique j'ai acheté des sachets d'eau écoute bien depuis dimanche boobu damay jënd lekk lu mu wax di jënd ndox di yóbbu ñu dem dimanche lundi mardi mercredi mu ne non avant mercredi lundi mardi waaw mu ne euh, ne leen ko suy indi coob ak ndox euh, na ma indil infusion persil parce que là là là où je suis je commence à sentir mes reins j'ai des maux policier bi ne ma mais na dafa bëgg infusion persil nii ma ne ok j'ai laissé le manger et les sachets d'eau j'ai pris un taxi je suis retourné à la maison je l'ai fait vite fait ma jëlaat taxi dellu ba ma demee ma ne kooku infusion persil baa jox ko mu jël ko dafa doon dugg beneen policier bi ne ko ça ne pas ma ne ko bon rends-moi l'infusion de persil ma ne leen maa ngi yor benn boîte Doliprane ak pouvez lui remettre ça. non non non madame. delloo leen ko moom su fi feebaree ñun ñoo koy faj ñun dinañ ko yóbbu hôpital c'est pas la peine de lui donner des médicaments c'est pas la peine qu'il demande vous lui des médicaments kenn du ko ko jox delloo leen ko s'il est malade ñun nañ ko yóbbu hôpital waaw policier bi mu ne s'il est malade ñun nañ ko yóbbu hôpital durant ça man ma insisté ma ne ko mais c'est pas quelque chose boo xam ne gisoo ko lii Doliprane mille la ak infusion la je ne vois pas le mal mu ne je vous ai ko oh léegi moom dala waxoon nga andil ko euh, perfusion persi euh, mu mel nii rek euh, moom koo xamante ne dafa subir ay ay torture. doo ko gis yow bi nga ko gisee ban état nga ko gisee yow. ñaan naa leen je leur ai dit c'est pas normal. keneen mun na bañ a dugg. mais pas seen jabar soo ñëwee. doo ko gis j'étais pas la seule. si biir lay ne yow doo ko gis dañuy jël. ñu yóbbu ci biir. et j'amenais des habits rechange. su ma demee ma taxaw. su ma yóbbee habits rechange. su changé mu jox ma yeneen yi. ma taxaw fa ma ne leen laaj leen ko lan la bëggaat lekk loo xam ne su ko lekkee il sera à l'aise laaj leen ko lan la bëgg mu ne leen wax leen madame indi na lu muy indi lépp comme chaque jour daf koy indi lenn laa soxla est-ce que mën na ma indil brosse à dents ak rasoir ñu ne non il n'allait pas question loolu moom du ko indi ma ne leen bon ne leen ko comme loolu duma ko indi man jisuma ko ne leen ko maa ngi toog à côté ci benn banc foofu parce que man je ne rentrais pas parce que je veux savoir l'évolution ak lu mu bëgg là ba je quittais très tard là-bas noonu laay def chaque jour j'y vais su ma déposé y a les vendeurs de café ils ont un banc ñoom laaj nañ ma loo fiy ut je les ai expliqué ñu ne mais c'est pas possible fii ils ont affirmé fi ne gars du dëgg du yoon mais ils verront ça dañu soxor xam j'étais sur le banc assise ba man heure boo xam soit mu nekk vingt heures wala je retourne chez moi le lendemain je fais la même chose j'achète à manger j'amène de l'eau on l'a arrêté le vendredi 17 ma laajoon ma yóbbu bëgguñu ko jël j'amenais de l'eau l'autre vendredi qui suit bu mu defee juste une semaine c'était le combien on l'a arrêté le 17 le vendredi bi les il a fait une semaine je suis arrivé à la police centrale vers 12 heures j'arrive je dis bonjour madame Mankabo ça va bien ñu ne ma ne leen et eh, monsieur Mankabo ñu ne demande ce gars là là-bas ma dem laajte policier bi monte bonjour je demande euh, monsieur Mankabo je suis venu déposer mu ne allez-y à l'hôpital principal il est à l'urgence ma ne leen je pars à l'hôpital principal il est à l'urgence je vous ai laissé mes coordonnées au cas. Il est parti à l'hôpital à l'urgence. Personne ne m'a appelé. Si j'avais tardé à venir, il faisait 12h30. J'ai couru vite fait à l'hôpital. Donc moom jamono yi nekkul euh, commissariat. waaw nekkul commissariat. Et je vais dire une chose très importante, je le dis sans gêne. En, en euh, euh, je prenais les escaliers en partant juste am benn policier bu ma coupé mu ne ma ils t'ont dit ce, ce qui s'est passé ma ne ko non ils m'ont rien dit mu ne ma baax na. mu ne maa yi toon di dalee à l'hôpital principal il est à l'urgence loolu rek la wax. waxuñu la loolu ko def ñoom luñ ko def si biir. ba tey yow xamoo lan dire. ils vont pas te dire. ils sont comme ça ma ma ne leen li ngeen def sama jëkkër. loolu xam naa ko yéen a xam li ngeen ko def. ba mu nekk urgence à l'hôpital principal c'est là que j'ai couru ma daw urgence. j'arrive à l'urgence j'arrive le médecin bi ma egg bonjour. je suis madame Mankabo on m'a dit qu'il est à l'urgence je tourne. de l'autre côté. Je vois que toxicheuse roulante la tête inclinée deret bi nekk ci moom deret bi bëri. il était à l'urgence mais il n'était pas dans une chambre. non non non on l'a sorti. c'est ce qui est grave on l'a sorti xoolal loolu il était dans une chaise roulante j'ai dit ah Seigneur aussitôt y avait euh, euh, benn rouleau mouchoir bu bu rëy nekkoon ci banc bi ma ne madame excusez-moi je peux mu ne ma si allez-y pourquoi pas ma xotti di nettoyer il avait la tête inclinée était-il conscient à ce moment-là un peu conscient il parlait moins j'ai dit fan mu ne han gis nga lu ma def gis nga luñ ma def gis nga luñ ma def ma ne ko waa calme yàlla rek ma ne ko calme-toi moi je suis là j'ai pris un mouchoir écoute bien je l'ai nettoyé j'ai nettoyé j'ai nettoyé j'ai dit mais et son t-shirt ñu ne ma euh, pour ñu mun ko kii euh, le médecin xam naa dafa jël ciseau mu déchiré ko comme il était fatigué j'ai nettoyé j'ai vu ñu ñaw front bi ñaw si bopp bi ñu teg col col bi sax muy dañ ma ne ñu teg col bi léegi moom expliqué na la qu'est-ce qui s'est passé. gis nga gis nga dañ ma dañ ma torturé. tu vas le voir à l'hôpital je te dis tu rentres en ce moment il est très conscient daf lay ne gis nga gis nga dañ ma trop dañ ma torturé mu ne ma ne leen du ma ko nangu muy fippu mu ne man lañ doon torturé muy fippu mu ne mais lu tax ñu may def lii mu ne du gis nga lu ñu ma def. moi je savais que euh, d'habitude dans les polices ça se passe comme ça mais ils von pas te dire man ma continuer di ko nettoyer. sérieux y avait beaucoup de sang bi ma ko nettoyé ba pare ma gis ko ni mu sonnee j'avais deux bouteilles de jus jus de buy et bissap dans ma philosophie dans ma tête je me suis dit le buy c'est de l'antibiotique ma def ko nii si gémmiñ bi mu naan policier bu ko doon surveiller mu ne ma li nga def baax na et j'avais euh, la bouteille euh, d de d'infusion de persil parce que moi j'y bois ma dugal ko sama sac may góor comme je ne mange pas j'ai pas eu le temps de manger je suis fatigué yàlla di def mu woon sama sac aussitôt ma am bi am un vieux c'est un bon tubaab la bu fa toog ma gestu nii ma ne leen taas laa soxla ma xelli ba mu fees ma def ko mu naan chaise roulante boobu mu toog ñu ne bon auto police mu ngi ñëw dafay dellu police centrale ma ne leen ak souffrance am ni mu sonnee ñu ne waaw dafay dellu su ma comprendre madame moom euh, jot na am ay blessure euh, le samedi waaw jot na am ay blessure dañu ñaw ci front bi ñaw fi dama fekk ñu ñaw mu nekk urgence waaw ci en une journée. waaw ñu defal ko premier soin. waaw il n'était pas rétabli mais ñu nax ko encore delloo police centrale. voilà et quand il est arrivé à l'hôpital ils le temps de le toucher un policier jeune. bu ko gungee mu ne on arrive à l'hôpital ñu ne leen kii dafa sonna ils ont pris le temps médecin bi mu ne dafa am urgence nañu patienter ils ont tardé à le soigner mbiru mu yàlla rek gis nga ils ont tardé à le toucher mais il fallait voir le sang qui a coulé moo taxit euh, ku bëgg a pour seede footuma yére boobu sandiwuma ko duma ko sandi parce que notre coutume duma ko sandi t baa nga fa deret bi dafa collé nii laa doon def le sang était coagulé ma fompa ma jël mouchoir bi kii oto bu ñëw ñu ne non la voiture vient dafay dellu police ma ne leen avec son état comme ça moi je veux voir le médecin ñu ne non il retourne yenn ñi soxor ma ne leen yenn ñi nag soxor la carrément ñu delloo ko police allongé ko ci benn fauteuil mu ne je ne sens pas mon cou je ne sens pas mon cou depuis l'hôpital j'ai demandé l'appareil pour mon cou je ne sens pas mon cou je ne sens pas les pieds je vous ai demandé l'appareil si jamais je meurs je demande vous me négligez rek man ma daa di génnee sama frotté ma frotté baat bi mu ne oh oh ma frotté main droite bi main gauche bi les doigts les les les pieds baaraam yi et tout ma frotté ko yëpp mu teg bopp bi ma ne leen kii il souffre moom mu ne yéen cherchez-moi benn oreille parce que là je souffre policier bi dem ut benn oreille ñëw teg oreille bi ci boppam bu ma dawee ma dem euh, jënd garab yi pour ñëw defaral ko ma commencé def garab yi ma sent ma sentir moustique ma ne leen mais là où il est couché y a des moustiques am policier bi monté woon il bien mu ne fais rentre rentrer dans mon bureau c'est climatisé mu dugal ko si bureau mu ne ñu indi oreille bi mu tegal ko oreille bi ci fauteuil bi mu ne ma madame bi ngeen di indi rechange bi da ngay mu ne ma yaa ngi yor rechange ma ne ko saye laa la police fii laa koy dee bàyyi demandé Dior su ma ñëwee damay dee gis un monsieur Dior ma ne demandé lui ñu ubbi rechange yi y deux chemises plus caleçon tubéy ñu jël deux chemises yi ñu muur ko xam nga la clim moom mu ne leen augmenter la clim ça va me faire du bien ñuy augmenter ko ñu yokk clim bi ñu muur ko ak deux chemises yi fekk defaral naa ko garab il faisait minuit ma wàcc ci suuf ma ne leen la bouteille d'eau il restait comme yéen fii mooy loolu dinaa wër parage bi pour xool na boutique tëjul may wàcc rek mu am ko ma ne le boutiquier ferme tard vas-y ma jëndaat beneen bouteille ndox bu ñu doon bañ comme dafa feebar nangu nañ ko ma yéegal bouteille ndox bi ma ne leen bii su jeexee je le connais moom il boit beaucoup ma bàyyi leen bouteille ndox bi ba léegi fan xam nga vendredi si guddi la j'ai quitté la police centrale vers minuit et demi une heure moins je suis rentré le lendemain le ma fa bi ma dawee douze heures fekk ma fa ma dem j'ai salué ma egg nuyoo et monsieur Mankabo il a du ma ne leen war na dellu hôpital bu dee doo leen ko delloo man ma jël charge boobu même su doon yéen a ko arrêté ma xool clinique wala mu delluwaat hôpital ñu ne ma si disait il faut mu delloo ko hôpital parce que sentiratul tànk bi il ne marche pas pour le moment il n'a pas commencé à marcher il sent pas ses pieds ko delloo hôpital si lañ ko yóbbu directement réanimation boobu la nekk réanimation ba tey da dem réanimation ñu teg fa benn policier bonjour ñun la yoon di euh, may policier diw ma ne ok je vois les médecins man santé am laa nekk di toppatoo ñu ne ma madame rentre euh, les visites c'est à 13h ku munti dem 13h ubbi ñu di nga ko gis muy journaliste keneen di nga ko gis mais man même 13h su passé woon oo ma di dugal ñu solal ma toile bi kii ma dugg réa il est conscient il te parle daf lay ne gis nga luñ ma def mu expliqué la ma ne ko calme-toi il pleurait ma ne ko calme-toi ku ko gis moom dina la wax luñ ko def daf lay wax luñ ko def. d'accord madame tey jii kon euh, sa jëkkër François euh, Mancabou euh, ñu arrêté ko fi nga xamante ni moom mooy sa kër le vendredi 17 juin 2022 bi nga xamante ni moom lañ nekk donc biñ ko arrêté. sûrement euh, waxuñu ko woon li nga xamante ni moom lañ ko doon toppee donc tey jii ñu gis le mu mel ni rek li nga xamante ni moom mooy la chasse aux chaussières bi ñuy wax maanaam euh, ku yor li nga xamante ni moo di sant euh, sud tey jii dañ lay topp donc bu ñu demee ba ci biir lañ ko daal di accuser li nga xamante ni moom mooy wax wàllum terroriste tey jii est-ce que nekkul ne dañuy déggal li nga xamante ni moom mooy la chasse aux chaussières bu ñu ñi di wax jamono yëpp par exemple le fait que ñi naan euh, instant yi nii ku yor euh, sant boo xamante ne sant Casa Senga balaa dañuy dañ lay jéem a euh, sachet balaa di la ndax foofu nga dëkk am dëkk ce que du loolu la ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko arrêté du loolu la ñuy dëggal en quelque sorte. man pour man loolu la parce que j'ai vu képp ku nekk Casamance dëgg naa au début dañuy toog di naan yow rebelle nga parce que am na sax ku ñu arrêté woon dañuy ne yow rebelle nga moom il en pour rien. déjà musul dem marche mu bokk si ñoo xam ne dañ ko boolee ñoom ñooy terroriste ñoom ñooy dem saccager mais il connaît pas ça il connaît pas ça s'il est Sénégal une semaine nekku fi il peut s'absenter un mois temps yële il était en voyage il est rentré il me disait sax day préparer benn voyage te ku ci bëgg am lu leer boo doon enquête fu ne ils te diront ses ñeneen sax dañ koy ne mais fan yow tu bouges tu voyages tu voyages rek tu nous donnes rendez mu ne leen ah leen dinaa mu sa toog moom sa toog na ba mu ne ma non man sama voyage yi dafa bëri mission mission je pense que il faut que je trouve une solution jéem a wàññi voyage yi ma ne ko mais ba tey c'est pas mal les voyages et du fi toog moom du toog fii lu bëri depuis des années du fi toog lu bëri d'accord merci beaucoup madame Coly euh, tey jii sa kàddu bu lan lay doon euh, lan nga mën a wax li nga xamante ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, suñu mbokk internet yi lu ma leen mën a wax mooy affaire bii métti na torop le fait que ñu taqal leen ñu sosal leen ay nit yu daan seen doole ça ne veut pas dire que qu'ils habitent Casamance moo tax ñu leen di ne c'est des rebelles c'est des terroristes pour ce pays là nit ñi di def lu leen neex man dama ne affaire bi dañ koy suivre dañuy dem ba jeex du fi arrêté dañuy dem ba jeex maa ngi ñaan qu'il y ait un bon rétablissement santéem mu jóg ak mais ça va pas finir man damay dama ne sax lii dañuy porter plainte ça va pas finir on va continuer c'est ce qu'on s'est vu avec ses parents son papa c'est vrai que santéem d'abord yàlla mu ngi def de jour en jour muy am rétablissement il est conscient c'est vrai mais affaire bi dañuy dem ba jeex duñ ko bàyyi nii parce que je me dis que c'est trop facile ce pays-là c'est du n'importe quoi c'est trop facile ñëw salaamaaleykum yóbbu nit nga torturer ko def ko loo koy def nit ki feebar ci biir police bi jabaram indil ko garab nga ne non euh, na ko delloo yéen ko feebar da ngeen koy faj ba egg à ce point réanimation li ñaan yàlla daal moo yàlla defal nu sutura euh, sutura nu ak teraanga ak wér wér ak baatin mu jàmm ju sax mucc saay saay ak jubbanti saay saay bañ jub. salaamaaleykum wa rahmatulah jaajëf.